asalaamualeykum gars yi naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sports 221 Ismaïla Sarr l'international sénégalais Leeds United jamono yi ñoo club bi nga xam ne ñoo ko bëgg a signé di koy remplacer ki nga xamante ne mooy Raphinha bi nga xam ne jaay nañu ko bu yàggul dara foofu la ci FC Barcelone voilà ñi nga xamante ni nag ñooy Watford danañu xaatu toll ci 35 millions d'euros ngir jaay ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr waaye Leeds United ñoom bëgg nañu ko signé bu ñu sukkandikoo ci kayit yi xibaar yi ki nga xamante ni mooy Memphis Depay tey jii ki nga xamante ne mooy avocat am doon na daje ak ñi nga xamante ñoo di kilifa yi bi FC Barcelone ngir ñu waxtaane li nga xamante ne mooy ëllëgu Memphis Depay maanaam naka la ñuy def ba taaxale ko ci jàmm bu dee Memphis Depay dafa am offre boo xamante ne jaral na ko mu génn club boobule au lieu que ñu koy jaay mbaa ñu koy appelé waaye dañu koy dal di bàyyi maanaam mu nekk comme agent libre dal di dem signé ji fu ko neex. loolu mooy li nga xam ne moom la ñu doon waxtaane tey ji moom euh, ki nga xamante ne mooy avocat wu Memphis Depay ak ñii di waa FC Barcelone kii xibaar bi biral nañu ne Juventus nag mooy club boo xam ne moo gën a jege fi mu ne nii bu doon kii di Depay day génn foofu la ca Barcelone ngir daal di koy signé voilà ki nga xamante ne mooy Lewandowski moom la ñu xam ne ne bu dee kii di Depay dem na moom dina porter li nga xamante ne mooy numéro 9 bi ci saison bii ñu dëkkmal waaye daal fi nga xamante ne fi biir mbir mi toll mooy ñu ngi waxtaan xool naka la ñuy def ba tàqale ko ci jàmm au lieu que ñu koy jaay wala bokk ñu koy appelé Abdou Diallo mom nak fimu ne dafa amat yenen ñaari offre yo xamne dal dina koy jot mu joge Fulham ak West Ham United mu nek ñaari club bu anglais gannaaw bo xamanteni fan yi rek ñu ngi deg ne ñi di AC Milan dañu delu ci dossier bi fimu ne ni nak mu nek ne eh, danaka do tollu ci ñetti club kon ñu ngi xëccio ki nga xamanteni moy Abdou Diallo mu dess ci mom ndax dafa bëgg dem ci English Premier League bi wala sax bok dafa bëgg kon ne jouer li nga xamanteni moy Ligue des Champions te bu ñuy xol ci club yoy AC Milan mo ci club bo xamne dina jouer ci Ligue des Champions kon ki nga xamanteni moy Abdou Diallo fimu ne ni voilà li dess ci marché bi euh, amaan na moom am na pour temps pour tànn ci ban club la bëgg a dem. Fulham club la boo xam ne dañoo monter ren waaye nag ñu ngi def li nga xamante ne mooy ay renfort di jënd ay joueurs yu baax ngir bëgg a des ci li nga xamante ne mooy championnat bi nga xamante ne West Ham United nekk club boo xam ne ñoom fi mu ne nii waxatuñu sax waxi maintien waaye ay joueurs yi Ligue des Champions la ñuy xëcc voilà mu fi mu ne foofu la ci Angleterre kon ñooy club nga xam ne ñoo ngi dox ci signé kii di Abdou Diallo Crépin Diatta moom tey ji daal dina joué ci match boo xamante ne ñii di Monaco amoon nañu ko li nga xamante ne mooy préliminaire Ligue des Champions ñu ngi joué li nga xamante ne mooy qualification yi ñii di Monaco nag dañoo joué seen diggante ak PSV waaye nag dañoo daal di am match nul un bi partout. Krépin Diatta dinay dugg ci 67e minute ci jongante googule voilà mu nekk nag beneen xibaar bu neex gannaaw bi mu dellu see fan yi la ci ginnaaw joué woon tey ji mu dellu joué waat ñu gis ne daal Krépin Diatta fi mu ne ni mu ngi gën a pare boppam ci li nga xamante ni mooy saison bi ñu dëkkmal li nga xamante ni nag moo ñeel ci match retour boobule war nañ ko am euh, ñoom waa Monaco bu fekkee bëgg nañu qualifier faw ñu dóor ñi nga xamante ñoo di PSV ngir war a mën a jàll ci li nga xamante ni mooy dégg nga euh, beneen tour bi ci Ligue des champions bi English Premier League bi ñoom nag fi mu ne nii joueurs yi dañoo lank ci li nga xamante ni mooy li ñu doon def maanaam sukk seen benn wóom euh, maanaam sukk seen benn tànk bu fekkente ne match war naa door te loolu yëpp ñu ngi ciy jubloon maanaam xeex wàllum racisme léegi nag loolu dañoo dem ba gis ne daal maanaam euh, amatul benn njëriñ ndax li nga xam ne moo taxoon ba ñu di ko def. moo doon maanaam xeex li nga xamante mooy wàllum racisme te ñu gis ne naa daal mbir mi wàññiwul ci dara xanaa dafa yokk waaye wàññiwul moo tax ñu ne club yi seen i capitaine daje woon nañ ak njiitu English Premier League bi daal dina xamal carrément loolu moom bàyyi nañ ko dootu ñu ko defati ndax li nga xam ne ko def ngir xeex li nga xamante ne mooy wàll wàllum racisme loolu joué wu ci ndax li nga xamante ne moom la ñu doon xeex dafa gën a yokk waaye dara wàññeeku ci kii di Jamie Vardy nekk attaquant wu Leicester City moom kayiti xibaar yi biral nañu ne Manchester United ak Chelsea football club yëpp ñu ngi topp ngir jéem a xool naka la ñuy def ba jot ci moom moom nag mag la def fi mu ne fanweeri at ak juróom dal dina koy am kayiti xibaar bi réer nañu ne nag benn at moo des ci contrat ak ñi di waa Leicester City maanaam juin 2023 ci la contrat bu war a jeex waaye ànd ak loolu yëpp ñaari club yi ñu ngi koy topp muy United ak Chelsea Football Club. Barcelone dañoo def li nga xamante ne mooy offre bu toll ci 15 millions d'euros ci ki nga xamante ne mooy Iñigo Martinez bi nga xam ne joueuru Athletic Club Bilbao la défenseur bi la moom benn at a des ci contrat am waaye Barcelone ñoom fi mu ne nii ñu ngi jox chance ñi di Athletic Bilbao ngir ñu am ci koppar comme ñoom bëgg nañu défenseur bi 15 millions d'euros bu fekkente ne nag ñoom dañ ko daal di rejeté maanaam euh, nanguwuñu 15 euh, millions d'euros yooyu la Barcelone dañuy dem toog di ba su ko defee ñoom dinañ ko signé librement daal di ko jëlee foofu la ca ki nga xamante ne mooy Malang Sarr moom kii di xibaar dañoo biral ne moom am na uh, club bii di Chelsea Football Club ak Monaco am nañu accord ci transfert xam nga doon na leen ko wax ci suba Malang Sarr day bëgg dem foofu la ca Monaco wala Monaco ñoo ko bëgg déggoo nag am na ci diggante ñaari club yi muy Chelsea ak Monaco si ab loon lay doon mu ànd ak nag li nga xamante ne mooy buy option voilà dañ leen koy abal waaye nag bu saison bi jeexee ñoom am nañu option ko lu toll ci douze ci xibaar continuer leen the best sport news channel.